وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi santar suñu boroom ñu ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax ne man yuridi llahu bihi xayran yufaqihu fi ddin yàlla kim namm ci yow yiw daf lay xamal la nga xam ne mooy sa diini loolu ñu ngi koy sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah ñu ngi yegsi woon ci wàllu jëflante njaay yi ba yegg fi yegg si woon li ñuy tuddee almaadatu saadisa fi riba fi riba wa sarf ñu ngi noonu ci buntu riba wa sarf jëloon nañ ci tuuti waaye mënees na ko jëlaat ngir ñi ko fekkewul woon mooy maadatu saadisa ci kitaabul bayoo mooy arriba wa sarf mi ngi noonu dimanche ji mooy ñaar fukki fan naam ak ñett ci li nga xamee ne nii moom mooy weeru tamxarit di tombe ak ñaar fukki fan ci weeru août su dee ne mbokk yi gis nañ ko ñu jëlaat bind bi mu ne fi riba wa sarf الربا لن مي ربا تعريفه هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة ربا مي ندولي تي أي ألل yoo xam ne nii dañ koo tënk ca mooy riba du dugg ci lépp waaye dafa am ci lum tënku wa huwa nawaan ñaari façon riba la mi ngi noonu riba fadl wa riba nasiya fa riba fadl lan mooy riba fadl mooy riba gënalante huwa yabiu aljins alwahid mimma yajri fihi riba bi jinsihi mutafadilan mooy nga jaay benn mbir boo xam ne nii benn melokaan la nga jaayee ko lu mel ne moom génnele ko wa zalika ka bayi qintaari qamhin mi ngi mel ne rek ki nga xam ne dafa jaayoon li nga xam ne ni moom mooy bërigob blé bi qintaar wa rubxi min al qamhi masalan mu jaayee ko bërigo ak kaar ci blé aw bi saai tam aw bi aw bay i saai tamrin wala jaay deux kilos masalan ci tàndarma bi saain wa nisf min tamri masalan nga jaayee ko lu mel ni trois kilos ci tàndarma aw bay i uqiya fida wala nga jaay benn loo xam ne nii valeur u mooy xaalis la moom la mu rëcca ñi di wax uqiya bi uqiya wa dirham min fidda masalan nga jaaye ko uqiya ak teg ca dërëm masalan mbokk kon ci lim lay tënkal ci lii rek dafa am loo xam ne riba da cay dugg mooy lu aji ci lekk yi bañ ko mujjee jàng dimanche misaal bi ñu ci joxe woon tey boo demoon ci ceeb yi prix yi dañoo safaanoo lool ceebu Caroline parfumé non parfumé ceebu Valet ila axiri ndax léegi yow mi nga xam ne da nga laaj waaw saaku parfumé li muy jar masalan ñu ne la vingt mille non parfumé li muy jar ñu ne la dix mille ndax am nga droit dem jëndi indi ñaari saaku non parfumé jox ko borom biti bi ngir mu jox la benn parfumé islam danaan déedéet maadaama ceeb la ceeb bi lu mu façon baree baree bari buñ koy weccee kenn du ko gënale kenn du ko ëppalante kon loolu mooy riba faddal riba ci ëppalante ñaareel bi nga xam ne moom la ñuy dal tey mooy li ñuy tudde riba nasi'a mooy riba boo xam ne dañ koo yéexe ca mooy la ca jëkk riba jahiliya na ko waa jahiliya daan defe wa huwa alladi qaala taala fi tahrimihi mooy la yàlla wax ci araamal ko yaa ayuha allazina amanu la taakulu riba adaafam mudaafa ee yéen ñi gëm bu leen lekk riba muy loo xam ne lu lu ñu ak ful gu ñu fulande wa xaqiqatuhu buñ la doon leeral dëgg-dëgg loolu mooy lan an yakuna lil mar'i ala axar daynun muajjala muajjal mooy nit ki ñëw lebal mbokk julitam benn bor walamma yaxillu ajaluhu yaqulu lahu imma an taqdiyani aw azida alayk waa ji daa ñëw lebal moro mbokkam julitam dix mille francs ba fin du mois fin du mois jot mu ñëw na ko sama dix mille waa ji na ko owuma mu ne ko kon dix mille yi da nga ciy teg beneen mille francs wala da nga ciy teg beneen cinq mille fa ida lam yaqdihi zaada alayhi nisbatan min min min al maal heure boo xamee ne nii fayu ko mu dolli ca benn cër ci alal wantazarahu muddatan axira daal di koy xaar dig beneen wa hakaza xatta yatadaafa fi fatratin min azaman ila adaaf loolee lañ daan def ba tey waa ji leble woon dix mille wëlbatu ko def ko quinze mille wëlbatu ko def ko vingt mille mën naa dem ba nekkaat trente mille ca kam ko lebal tant que date ba ñu wax fay fayul rek mu mu mu doble ko loolu bu ñu xoolee système boobu moo am suñu banque yi ba tey mooy banque tey bu la lebelee un million nga war koo fay un million cent mille fa nga war a fay bu jotee xamal ne bor ba day duggaat léegi nekk boru un million cent mille ak intérêt yi muy tege boo moytul mën na nekk léegi un million deux cent mille bu date ba passé un million quatre cent mille ba da ngay gis koo xam ne mën na yoral banque bi tey jii lu jege dix millions bala ñu fay def dix ans loolee mën na dem ba ay vingt millions trente millions noonu la ko jaahiliya daan defe bokk na ci loolu ba tey riba nasi'a ba tey mooy wa huwa bayu shay allazi yajri fihi riba ka ahadi naqdayni mooy nga jaay loo xam ne islam tëral na ca riba mi ngi mel ne tey ki doon jaay xaalis pur wala mu jaay or pur awil burri aw sha'ir wala kiy jaay la nga xam ne mooy blé wala muy jaay li nga xam ne mooy orge aw tamr bi axar wala mu jaay tàndarama di ko jaay leneen mimma yudxiluhu riba nasi'a ci loo xam ne dina ci dugg riba bu ñu yéexe wa zalika ka an yabi arrajul qintaaran tamran bi qintaarin xamrin ila ajal masalan tey jii dana dagan benn waay indi cent kilo blé nga indi cent kilo tàndarma ngeen jaayante ci loolu ku ne dem loole boo xoolee lu bari ci àdduna bi rawatina en Afrique loolu la ñuy tudde troc avant xaalis di fi am suñ maam yi noonu rek lañ daan jëflante loolu lu dagan la amma kaay ma jox la cent kilo blé bu suba wala bu weer wi dee nga indi ma cent kilo tandarama islam day bañ loolu fokk day doon ci benn place aw yabi a ashrat dinar dananir zahaban bi miatin wa ishrina dirham fidda ila ajrin masalan tey dana dagan ci lislaam kii indi fukki dinaar ci or am koo xam ni daa indi ñaari téeméeri dinaar mooy miatain wa ishrin mooy deux cent vingt ci ay dirham ngeen jaayante ci loolu amma bu dee ni dang ma lay jox or bi tey bu subaa wala bu ngoonee nga indil ma xaalis bi loole da ngay gis ne islam day tere fas yee façon njaayin bu mel noonu mi ngi noonu ngir na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere loolu mbokk moom mooy misaal yi mu ci joxe xaw ma su doon te ne am nañ ci ku ci am lu ko dese leer incha allah mënees na ci jéem a leeral wala baat yi ñu jàng it ku dee baat ba dese de la leer naam bismillah naam la nga xamee ne mooy boo ñëwee dañ koy jaay saako ceeb bi da nga naan ko dama lay jaay saako ceeb bi ngeen waxaale ko ba prix bi mat su ko defee yow nga dolli lañ cay dolli daa di doog a jël sa saako ceeb li ñuy bañ rek mooy ceeb bi wecci ceeb bi mais maadaama bi nga ñëwee d'accord ngeen ci ne saako bi treize mille lay jar léegi dama la koy jaay treize mille mu d'accord ci loolu nga yëkkati sept mille teg ci su boobaa da ngay gis ne njaay moom lislaam dana koy daganal li lislaam du woon daganal mooy nga jox ko ceebub kese mu jox la ceebub kese mi ngi noonu fekk yow lañ ko jox ci ceeb moo ëpp lam nga jox ci ceeb donte ne valeuru ceebam moo gën a màgg wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam employé yi nga xam ne ñoom ñoo moom ceeb bi dañ waaw waaw ala kulli xaal liñ jàngoon mooy nit ki su dee ne da nga ko dafa jënd dara loolee mu jënd da ko war a jël avant mu koy jaayaat su dee ñoom jël nañ seen ceeb ba moom ko ñu wëlbatikuwaat jaayaat la ko islam du tere loolu islam li muy tere mooy bay ul iina mooy nga lebal ko ceeb bi ba pare wëlbatiku jëndaat ko ci moom mais bu dee dañ ko koo jaay dañ ko koo jëndal jaay nañ ko ko moom mu jël ab ceebam su wëlbatikoo ñëw di la ko jaay loole da ngay gis moom dara nekkul ci loolu mi ngi noonu ndax safaanoona ak bayul bayul ayna bayul ayna mooy ki nga xam ne moo ko leb nga mel ne bu deente entrepreneur bi ci boppam wala chef de service bi nga xam ne moo ñëw ci ceeb bi da day dala koo leb bu wëlbati ko di la ko jaayaat loolu dafay xaraam mais ki nga xam ne dañ koo may ab saako ceebam moo ko moom lañ cay charter rek mooy na ko jël ba pare da koo jaay ndax li ñuy bañ mooy nga jël jënd benn mbir place ba pare di ko jaay ci même place wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw ala kulli xaal lii nga xam ne mooy bayul ina mooy ki ñëw leb ci place ba pare wëlbatiku waat jaayaat ko léegi nag mu des ci waa ji nga xam ne moom dañuy daf dañoo jël ci leb moom moo ko jël jox ko ko bu dee ci leb moom moo ko jël jox ko ko loolee mu nekk ak moomeelam su boobaa dañuy gis ne duñu mën a wax ne moo commerçant bi dañoo def bayul iina bu dee moom du moom jëmmi boppam la ko lebal loolu mooy la ñuy gis ci loolu amma bu doonte ne ne dañuy gis ne employé yi ñoom ñoo d'accord ak service bi pour service bi dem lebal leen ñoom ñu wëlbati ko di ko jaay su boobaa loolu moom du dagan su dee ne employé yi ñoom ñooy làqu ci gannaaw service bi service bi dem lebal leen ñoom ñu wëlbati ko la leen service lebal ñu wëlbati ko jaay ko waaye dina service bi ci boppam moo ko jël may leen ko loolu nekkul luy dagan ndax képp koo dimbi leen teel ci mbir da ngeen di am même acce bi loolu daal mu ngi noonu bu dee ni mu ko waxee noonu la islam du daganal loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal suñu delloo ci suñu téere bi day wax ci ñaareelu poñ bi ñaareelu bind bi mooy xukmuhu lan mooy attey riba ci lislaam xam ngeen lislaam day am loo xam ne dañ koo araamal am yoo xam ne dañ koo sib am yoo xam ne nii dañ koo waral am yoo xam ne nii dañ koo sob ila axiri lan mooy atte riba ci lislaam xukmuhu arriba muharramun bi qawli llahi taala wa axalla allahu albaya wa xarrama riba suñu delloo riba ci alquran dañuy fekk suñu borom mu ne daganal na njaay waaye araamal na riba ca loolu it yéeféer yi ñoo doon wax riba nu muy araame riba ak njaaye yem rek ndax kii day jënd ab téeréem ci mille francs jaay ko mille cinq cent kii ñoo leble mille mille francs pour ñu war koo fay mille cinq cent suñu borom nag mu ne déedéet yàlla moo daganal njaay moo aramal riba wa bi qawlihi azza wa jal ya ayuha alladina amanu la taakulu riba adaafa mudaafa daana waxit ni e yéen julit ñi bu leen lekk riba ci loo xam ne ful la guñu ful wax nañ la ko mbir mi ni muy demee mooy kii di ngeen leblente commencement leb li riba amu ci da nga ko lebal normal mu war la fay normal mu war laa fay nag amul nga ne ko kon dama ciy teg dara loolu riba la moo ki ñëwoon au départ ngeen su ñeentee dañ ciy teg dara yéen a yem loolu moo rob ci alquran amma bu ñu delloo ci sunna te it ñaar yooyu bu ne tegtal la ci jullit xamal ne bépp atte boo rob ci alquran yàlla di ko tere da ngay xam ne lislaam tere na lu rot ci sunna ca rotul ci alquran yonent bi tere da ngay xam ne lii lislaam da koo tere doonte ne riba daa boole alquran ak sunna yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne la'ana allahu akila riba wa muakilahu wa shahidayhi wa katibahu yàlla day rëbb na ci riba ñeent rëbb na kiy lekk riba bi mooy ki leb la ñu jox ko lu ëpp mu koy lekk waaye rëbb na ki koy jox riba boobee ci nangoo siñenteeg moom lebal ma ma dollil la yàlla rëbb na kooku ñaar ñu ñëw di seede contrat bi yàlla rëbb na leen ki toog di bind contrat bi yàlla rëbb na ko looloo tax ba mbokk riba bokk ci bakkaar yi gën a dangereux bakkaar yi gën a dangereux bokk na ci riba ndax riba bu yemoon ci rek nga leble teg ci intérêt kon jullit ñi quatre-vingt-dix pour cent daan ci mucc waaye l'islam ni mu bañee leble jël intérêt noonu la bañee nga dem di leb di ci teg intérêt donte ne malheureusement tey sun transaction li ñuy am ci wàllu jëflante la ci ëpp ci loolu la tëdd ba jullit ñu bëri jàpp nañ ne sax loolu garaawatu loolu amul benn problème damay war a tabax sama kër damay war a jënd oto damay war a nangam damay war a nangam dem leb banque banque financé la dama am projet nangam dem leb banque mu financé la loolee mbokk nit ñi defatuñ ko benn problème mi ngi noonu ka nga xam ne it mooy ñëw di seddaloolu di ko bind loolu day indi benn danger bu nekk ci liggéey ci banque wala waaye nañu xam ne yow ndawal julit heure boo amee di tànn wala waaye tànnal beneen liggéey bu dul liggéey ci ab banque mi ngi noonu ndax la nga mën a dugg ci rëbbug yàlla ci li yonent bi alayhi salaam wax ku seede riba ku bind riba day bokk te ña nga xam ne yàlla da leen rëbb loolu mbokk da ngay gis ni rëbb googee ko suñu borom yàlla rëbb ak li nga xam ne wax na ko te baqara ne waajal leen ci xeex buy jóge ci yàlla ak yonent bi loolu moo tax ba bari na lool julit ñi ciy dugg yàlla ñàkk a barkeel lañ jële ca riba boobee wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam daana wax ne ijtanibu sab al mubiqat na ngeen moytu juróom ñaari bakkaar yuy alak doomu aadama bi bit naam ah naam wala boo ko naam naam naam waaw mu ne wa qawlihi bokk nañ ci wax yonente ba sallallahu alayhi wa sallam wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam dirhamu riba yaakuluhu rajul benn dërëm ci riba bu góor ga lekk wa huwa ya'lam fekk moo xam ashaddu min sittin wa thalathina zaniya moo gën a màgg la nga xam ne mooy fanweeri njaaloo ak juróom benn wa qawlihi bokk na ca waxam ja ba tey arriba salaasa wa sabuuna baaban riba nekk na juróom ñaar fukk ak ñett ci ay bunt aysaruha an yankiha rajulun umma mooy ba gën a woyof ci riba mi ngi mel ni nit ki nga xam ne day sëy ak yaayam wa inna arba riba la gën a kawe ci riba mooy irdu rajulil muslim mooy deru julit doonte ne ne mbokk fëlila alhamdu li di hadis bu ñàng borom xam-xamu ulamawul hadis dañ ne hadis yi wérut dañ ne hadis yi wérut bu dee hadis bi nekk ci kaw jazakallahu xayran bu dee hadis bi nekk ci kaw ca mooy riba gën a garaaw fanweeri njaalo juróom benn la ca wér mooy kii di kaab al ahbar nga xam ne ab yahud la woon bu tuub moom moo doon wax ne ma njaaloo woon fanweeri yoon ak juróom benn moo ma gënal ma nekk riba ndax li yàlla wax ci rëbb kay lekk riba waaye wax ji du waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji ci tege it dërëmu riba moo gën a garaaw mooy juróom-ñaar fukki bunt ak nangam ba ca gën a suufe mooy nit ki sëy ak yaayam déedéet bokk julit loolu wérul wérul ci wax yeneen ci bi te it fa lillahi alhamdu lillahi alhamdu bi ma demee ba gis borom xam-xam yi ne wérul rawatina Cheikh Nasir Albani dama ne alhamdulillah da xadis la bu siiw ba gis nga kii génn ko ci téeréem te daan ko jàngale ci jumaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye boo xoolee nit ñi niñ mel tey ci riba da ngay xam ne loolu kon lu màgg la ala kulli xaal bokk njaaloo lu màgg la waxuma nit ki njaaloo waay juram loolu kenn du ko méngale ak riba kon mi ngi noonu xadis ba nekkul xadis bu wér wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba tey ijtanibu saba al mubiqat moytu leen juróom ñaari bakkaar yuy alagaate qiila ya rasulullah ma hiya ñu ne ko yu mu yàlla yónni bakkaar yooyu di alagaate yan la qaal mooy ashirku billah nit ki bokkaale wa sihr nit ki def ak njabar wa qatlu nafsi lati harrama allah ak rey bakkan bu yàlla araamal illa bil xaq lu dul ci dëgg wa akilu riba ak lekk li di riba wa akilu maalul yatim wa akalu maalul yatim aklu riba lekk riba aklu maalul yatim lekk alali jërim wa tawalli yawma zah ak daw ci bisu ba julit ñi di roofal ak yéefar yi di xeex yow nga daw wa xasful muhsanat wa xasful muhsanat al muminat al ghafilat gannaaw ba nga fekk soxna soo xam ne ku fekk boppam la ku gëm yàlla la ku sàggane mboolimi góor yi yow nga wëlbati ko jiñ kan njaaloo juróom ñaar yi bàkkaar yi day alak doomu aadama te mooy bàkkaar la yoo xam ne dañ koy def suñu borom rëbb la soril la yërmandeem ba loolee nekk lu la alak te gis ngeen bokk na la nga xam ne moom moo jël te position ya muy li di lekk riba léegi lii mooy atte bi waaw ndax am na nag benn xikma boo xam ne mënees na koo jële ci lan moo tax suñu boroom araamal lekk araamal riba bokk jullit boo xamee xikma ci atte da cay sant yàlla mu sawarloo ko waaye ñàkk a xam xikma bi it maadaama xam nga atte bi lii lu war la da nga koy def lii lu xaraam la da nga koy bàyyi amma xikmatu tahrimihi lan mooy xikma araamal riba min alxikmi zahirati fi tahrimi riba bokk na ci ak xereñ yi muy sagesse am njàngit boo xam ne bu feeñ ci yàlla araamal riba mooy ziyaadatan ala al xikmati al aamati fi jamii takaalif sharciya suñ ko dollee ci xikma ba nga xam ne dafa tege ci kaw mboolem lu yàlla teg ay jaamam ci sharia wa hiya imtihaanu imaani al abd bi taati filan wa tarkan mooy yàlla day nattu jaam bi ndax dana ko déggal def ndigalam wala bàyyi lan mooy xikma ci julli yàlla ko nattoo ay jaamam ci nim ko neexe lu tax tisbaar ñeent rakka timis ñett xamuñu yàlla ko nattoo noonu aj makka pourquoi yàlla tëral ko yàlla ko nattoo ay jaamam weeru koor yàlla ko nattoo ay jaamam ba xam kan moo koy topp ak kan moo koy moy waaye gannaaw loolu nga xam ne mboolemi jaamu yàlla ñoo ko bokk mooy nattu la bu yàlla nattu ay jaamam ba xam ku ko ci déggal riba nag moom dolli na ca juróomi mbir yoo xam ne boo ko bàyyee xel da ngay xam ne kay suñu borom yàlla araamal riba loolee mboolem borom xel dana ko nangu xikma bu njëkk al muhafazatu ala maalil muslim li alla yu'kala bil baatil mooy ñu sàmm alalu jullit ba kenn du ko lekk ci ak neen gis ngeen tey kon ma leen doon wax da ngay gis koo xam ne dafa dem defoon benn prêt bancaire bu ndaw am na benn ay moo ci nettali koo xam ne def seen papa sax moo dee mais banque bi dem ba leen di topp ay millions lu tax mooy prêt bi fayuñu ko muy multiplier di multiplier wu ca compte ba loolee kon day tax ba nit ki ñuy lekk alalam ci neen ki dix mille la la lebaloon fin du mois nga war a fay ngant am na amoo looy fay mu ne kon da nga ciy teg beneen mille francs kon sàmm alalu doomu aadama yi tax na ba yàlla aramal riba muy benn ngoo ñaareel bi tawjihul muslim ila istismaari maalihi fi awjihin min almakasib alsharifa alxaaliya min alixtiyaali walxadia mooy jullit bi ñu xiirtal ko jubal ko ci mu ñoŋal alalam ful alalam ci façon fagguwaay yoo xam ne yu tedd la yoo xam ne dana mucc ay naxaate ak la nga xam ne mooy pexe woraate والبعيد يسري عن كل ما يحلب المشقة بين المسلمين والبغضاء ك itamit di sori lépp loo xam ne day indi jafe-jafe ci jullit ñi di indi noonoo seen biir wa zalika kalfalaxati wa sanaati wa tijarati saxiha nazifa ngir alal ji ñu mën koo dugal ci wàllu mbay mën koo dugal ci wàllu la nga xam ne liggéey technologie mën koo dugal ci commerce boo xam ne bu wér la mbokk julit tey am na ci nit ñi ñoo xam ne seen alal duñ ci liggéey dañuy xool banque bu ëpp taux d'intérêt ñu dem placer ko tey masalan boo négocier woon ba dem placer ci benn banque un milliard ñu lay fay dix pour cent donc yow chaque année cent millions dolleeku ci da ngay dem rek tëdd jaaxaar chaque année am nga cent millions loolu ñu bari moo leen ëppal garantie bu ko defee alal ji accumulé wu ci banque bi yow nga dem jaaxaar amma ki xam ne loolu daa xaram alalam joojee fokk mu bëgg mu yokk kon fokk mu dem liggéey ci liggéey ci na doon ca tool yi la ca technologie ba la ca commerce ba loolee ñeneen jëriñu ci waaye bu doon ne loolu rek da ngay gis ne dama leen ko wax ci fi gën a kawe waaye boo xoolee sama sunu mbokk ayub turé bi ngeen xam bilal may nettali kenn seen góorug salum salum da daan xaalisam la yor rek boo ñëwee am na kaamil alxuraan bi gars yi ñëw di leb si mu laa lii kaamil bu waxkat man du ma ko def man dërëm tànk lay def digg nawet bu la lebalee dix mille bay fay fay si quinze mille bu la lebalee cent mille bay fay si fay si cent cinquante mille su ko defee moom day jaaxaan rek chaque nawet la muy am genn wàll ga sax waa dëkk ba duñ ko am amma ki xamoon ne lii daa xaraam alalam jooje fokk mu jëm ko dugal ci loo xam ne ni dana ko dana ko dana ko indil njëriñ loolu kon mooy beneen xikma bi suñu borom tëral loolu ñetteelu xikma ci araamal riba saddu turuqil mufdiya bil muslim ila adawati axiihi wa mushaqatihi mushaqatihi mi ngi noonu wal musababati lahu mi ngi noonu buxdahu wa karahiyatahu bokk na lislaam lu muy sàmm ci diggante jullit ñi mooy fatt mboole mi bunt yoo xam ne dana tax noonoo am diggante ci ay jullit teg coono am sa mbokku jullit loo xam ne day sabab mu bañ la sib la te la chaque ne waa ji la leboon leboon masalan cent mille francs nga ne ko da nga ciy teg riba même bu doon vingt mille francs mu lay fay di fay ba fay la sa cent mille yëg na daa war a jël yeneen vingt mille tegal la loolee la chaque année noonoo gu rëy rëy rëy dana dox seen diggante loolu moo tax ba islam it araamal lu mel noonu ñeenteelu xikma bi mooy tajnibul muslim ma yuaddi bihi ila halaakihi is akilu riba baaxin zalim mooy yàlla tëral na lii ngir jullit mën a sori lépp lu koy alak ndax lekk ko tib riba daa bokk ci ñi bew tey tooñ di lekk alalu nit ñi ci neen wa aqibatul baxyi wa zulm wa xiima la nga xam ne nag mooy mujj ko ak bew ak tooñ ku ne xam na ne alkaange kese la qaala allahu taala ya ayuha nnaasu innama baxyukum ala anfusikum suñu borom mu ne ay yéen nit ñi xam leen ne bew gi ngeen di bew ci seen kaw lay dellu amul kenn ko bew lu dul balaa dee yàlla woon ko ko wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ittaqu zulm yonente mu ne waay moytu leen tooñ fa inna zulma zulumaatu yawma alqiyama lii di tooñ day zulumaatun yowm alqiyama ay lëndëm lay doon yowm alqiyama wattaqu shuxa fa innahu ahlaka man kaana qablakum ay waay moytu leen ak nay ak xir ci alal loolu day moo alagoon ñi leen fi jiitu woon xamalahum ala an safaku dimaahum loolu yóbbu ñu leen ñu tuurante seen deret wastaxalu maxaarimahum daganal la yàlla araamaloon ci ñoom loolee kon mbokk suñu borom yàlla daa bëgg julit laa adduna ak alaxira looloo tax lépp lu koy jural ak noonoo digganteem ak mbokk julitam lépp lu ko jural bew yàlla tere ko ko moo taxal mu tere ñu carte tere ñu sàngara ndax nee na seytaane di ci bëgg a jaar nga indi noonu seen diggante lu mel noonu it moo tax suñu borom yàlla araamal riba boobu ci ñun amma bi ci mujj moom mooy fatxu abwaabul birri fi tawjihi al muslim li yatazawwada li axiratihi mooy ubbi bunti njëkk ci kanamu julit ngiree mu waajal alaxira fa yuqrida axaahu lmuslim bila faida mooy mu lebal mbokkum julit ci loo xam ne du ca teg dara wa yudaayinahu wa yantazira maysarata mu daal di koy lebal xaar kerug ba ko yàlla di yombal wa yuyassira alayhi wa yarhamuhu mu yombal ci moom te di ko yërëm ibtigaa mardatillah ngiree yaakaar ca lii di payug yàlla jalla wa ala loolu wa fi hada ma yushayiu almawaddata bayna almuslimin lii rek mooy mën a jur cofeel diggante julit ñi wa yujadu ruux alixaa wa tasaafi baynahum indi it lii di ruuxu ñu nekk ay doomi ndey laayenti biir seen diggante lu mel nii moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ci ni képp koo xam ne da ngaa lebal sa mbokk julit benn bor bés bu nekk dañ la considéré sarxe nga lu toll na bor bi te boo demee ci capitaliste li ñu wax mais non nit ki boo ko lebalee tey un million mu toog ba trois mois fay la mais xaalis bi day ñàkk valeur taux bi inflation bi da ngay perte mais julit moom du perte yonent bi sam nee na foo lebale sa mbokk julit bés bu nekk jàpp nañ ne sarxe nga lu toll noonu sahaaba bi ko doon nettali di Burayda ibn al-Hasib daa dina yow mi yàlla yónni ma foog da nga ni bés bu nekk dañ koy bindal duubalu lam ko lebal yonent bi na ko waaw su ko lebalee ba bis sangam bés bu nekk dañ ko bindal lu toll lam ko lebal bu bis ba jotee mu daal di koy xaar yombal ko ñu commencé di ko bindal duubalu lam ko lebal wala loolu lebal nga ko cent mille ba fin du mois bés bu nekk malaaka yi bindal na la sarxe nga cent mille fin du mois jot na amul lum la fayee nga muñal ko bés bu ne malaaka yi bindal na leble nga deux cent mille ma dox gaa yi tuyaaba jooju dana yem ak riba laa du yem ak riba loolu kon moo tax ba suñu boroom lépp lum ñu xañ rek suñu njëriñi àdduna da caa nekk ak la nga xam ne mooy suñu njëriñi alaxira yëpp donc mi ngi noonu bilal ba waxtu bi daa jege jot na waaw kon incha allah xam naa ñu noddu li ci des ñu yeggale ko ak i laaj incha allah waala kulli xaal mbokk loolu ñu doon jël ci bint ci bind riba bi nañu xam ne suñu borom lu ci bari bi mu koy wax ci téeréem da ci boole la nga xam ne di ko lënkaleeg sarax sarax wala zakat mooy contraire riba kii jël riba daf koy jël ki ki nga xam ne moo ko moom la tani lebal ko jëree jël ci moom loo xam ne ni da koy dolli ci alalam amma sarax wala zakat mooy li nga xam ne yow yaa ko moomal sabab nga jël ko joxe ko ci yàlla tax loola tax gis nga buñ demee ci aaya riba yi ñu doon jàng ci timis ci biir aaya riba yi la yàlla dugal ñi nga xam ne dañuy joxe azaka te muy wane ne loolu ab julit toujours da koy war di yaakaar payam ci yàlla subhanahu wa taala di bàyyi xelit jamono bi ñu tollit nattu yiñ ci yàlla nattu léeg-léeg day day bëri lool ca loolu nañu xam ne nattu yàlla la sunu bàyyi lu ci ëpp ci ñoom mosuñu taxaw banque am na ci ñoo xam ne mosuñu gis sax banque et pourtant dund nañ ba seen dund jeex mais tey la nga xam ne mooy tentation yi dafay doon lu bëri lool lool lool lool ca wàllu système bancaire yooyu waaye yow julit heure booy gànnaa yoo ci ne amul looy bàyyi te yàlla tax lu dul yàlla gën jox la lu ko gën loolay day dalal sa xel amul looy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla jox la lu ko gën loolee day dalal sa xel mi ngi noonu amma kii dafay laaj mais kii li nga wax dafay jël daf ko daf ko ana Babacar daf koy jël wala da koy leb mille mille francs di ko jaay mille cinq cent waaw ndax koo xam ne ni dafay jënd ay ay matériel ci jamono yi suñ demee ba événement yi am nga xam ne nit ñi day nit ñi dañ koy soxla mu doog koo jaay loolee da ngay gis ne ah dara nekku ci li ñuy bañ rek mooy denc ay dund nit ñi soxla ko te duñ ko gis amma bu dee loo xam ne ni du du ab dund ay yére la ki ay dal la ki ay nangam ay saaga yu deme noonu léegi masalan boo demoon di jënd saak ci marché bi mën na mu woyof lool nga denc ko ba ouverture jot nga nga jaay ko loolu islam du ci wax ci loolu dara gannaaw ba yett prix ba ngay jaayee même bu dee dafa double la nga ko jëndee islam du wax ci moom dara lenn daal la islam di bañ mooy nax nit ki wala lor nit ñi te xañ leen lu ñu soxla la nga nëbb ko waaye bu dul loolu islam du wax ci loolu dara wallahu subhanahu wa taala alam naam ñaari yoon waaw waaw ala kulli xaal waaw ala kulli xaal loolu ngay wax moom beneen atte la nañu xam ne mbokk julit yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne layul waajid zulmu ki nga xam ne dafa am ba pare bañ a fay kooku ma ngay tooñ ba nee na sax dana daganal ab deram lu ko kaka lebal wax dagan na ci mu wax ko te it malheureusement ñun suñ aada ci Sénégal dafa am kaddu gu ñaaw gu fi am mooy bordurey kenn lu bari ci doomu aadama yi bordu dara ci ñoom waaye mbokk bor lu diis la su yonente bi alayhi salaam su demee ba nit ñëw ak yërmande ji yàlla def ci xolam mu laaj ndax bàyyi na bor ñu ne ko déedéet ñu ne ko waaw ndax am na lu mu ko fay mu ne déedéet mu ne jullee leen ko kon loolu lu diis la jullit heure boo cay dugg benn yéeneel na dinaa ko fay bu dee sell na sa xol ne yéene nga da nga ca fay tey yéene boobu ànd ak yow ñaara mën a am yàlla yombalal nga fay ko bu la yàlla yombalul nga fay ko it bis boo dee dana am ko loo ko fayal wala yàlla féete woo ko fayal la ko amma bu dee bi nga koy leb yéene woo fay ko wala dem nga ba ci digg bi nga gis naa waa ji kat amul problème kon naa ko farmaasale mbokk loolu ci di gën a garaaw ci garaaw yi ca la bokk loolee ñu bàyyi ko xel bu baax wallahu subhanahu wa taala alam naam dafa mel ne mbokk bi dafa yëkkati la bisimilah waaw nga xam ne dafay jëflante riba xamu ko ndax yow da nga ko war a wax ndax boo ko waxee nangam nangam ala kulli xaal islam moom daf nu digal ni wa taawanu alal birri wa taqwa jàppalente leen ci bir mooy lépp luy jur mbaax ak njekk wa taqwa luy jur ragal yàlla donc sa mbokkum jullit boo ko gisee mu nekk ci riba da nga koy xamal ne ko ah diw ndax dool laajaat man day jàpp naa ne lii ngay def nii riba la yaa ngi dégg leeral ko ko xamal ne ko riba la loolu muy benn ñaareel bi mooy ndax nit ki ñëw di la leb bi nga ko lebalee ba pare mu ñëw am lum la ca tegal ndax loolu dañ koy jàppe riba su doon te ni day ne yéen waxantewu leen ko woon moom moo ko coobaroo rek def ko islam du tere loolu doonte ne ne bañoon koo jël mooy la gën rawatina bu dee ne dafa doon loo xam ne xaalisu dikkit la ndax lam mën a doon loo xame ne nii dafay nuru nurulu la nga xam ne mooy ak riba la wala moom mu jàpp ne bu deful lii ëllëg doo ko doo ko nangoo lebal waaye daal bu dee ne lu tombe la masalan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leboon na ay gileem biñ indee gileemu sadaqaat yi mu wax kenn ci sahaaba yi nañ jël gileem yi fay leen ñu ne ko ah gileem yi ñu fi gis kat yi fi nekk yëpp moo ëpp yeñ leboon mu ne jox leen leen bokk na doomu aadama yi mooy ki gën a rafetal ni muy fay loolee kon moom bu dee ne lam la fay si daa ëpp da ko coo teg rek ngir da nga koo xettali woon xolam sedd mu may la ko loolee dañuy wax ne la gën mooy nga bañ koo jël waaye jël ko it du dugg ci ba ci ci ci place riba wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa dañu mujj ci mbokk bi rek kon waaw bismillah naam bismillah waaw taxe yi ñuy def ci lan waaw waaw pour pour banque ba taxe yi ñu ciy def ay taxe déedéet loolu du leb virement bancaire loolu bokkul ak leb kooku service la boo xam ne banque bi dala koo defal nga koy fay la ñuy wax ci riba mooy da ngaa dem ca banque ba jël ca xaalis bi nga koy fay si teg ci mais bu dee banque bi da nga ko liggéeyloo te mooy defloo ko un virement loolee loolu service la boo xam ne da nga koy fay banque bi loolu du dugg ci wàllu riba waaw xam naa mbokk yi dañu am suñu dëkkandoo yi sus fi ci jàkka ji rawatina seen ay ñetti xale yu demoon ci géej gi sànq benn oto ñëw ramasse leen ñoom ñëpp alhamdulilah deewuñu mais ñu ngi leen évacué hôpital principal rawatina nag seen yaay dafa sonn lool ci nettoyé jàkka ji moo taxoon ñu bëggoon rek suñ dillee ba pare lu ci waay am xam nañu leen dañoo xaw a néew doole ñu jàppale leen ko mi ngi noonu te it ñuy gën a bàyyi xel rawatina jamonoy vacances yi di gën a sàmm xale yi yal na yàlla saafara leen saafara bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain